maa ngi nuyu bu baax nag di am mbégte madame le ministre de la jeunesse madame Néné Fatoumata Tall di wax ne sama xarit la lool waaye loolu taxul ma jàpp ko taxul ma naw li tax ma naw ko mooy fulla ak fayda ak bëgg liggéey bi ci moom mu nekk aussi ku tabe xam ku tabe ci li mu mën ak ku tabe ci teraanga su ma ñëwee ba fii dinaa ko ko seedeel ndax yàlla dafa dogal lu yàggul dara bi ñuy dëgmal élection gox-goxaati ñu tabb ma def ma candidat foofu dafa bàyyi yitteem yépp sol dàllam ñëw ba foofu bokk na ci njëkk a ne dama lay jàppale si kon maa ngi ñaan sunu borom loolu nga xam ne mi ngi koy dëgmal aussi na xam ne maa ciy jiitu danaa ñëw sa wet jàppale la li tax ma koy def aussi du ay bëtam mais daf ma wóor ne li mu yéenee géejawaay moom ak i moroomam bëri nañ kon damay jàpp ne li mu yor leneen lu ci tegu day mel ni géejawaay rek a yokk maa ngi nuyu aussi préfet bu baax ak sous di leen sant di leen gërëm ci seen taxawaay ak ci li nga xam ne def nañ ko pour suñu jotaayu tey bi am may nuyu aussi soxna na ba Traoré mi nga xam ne moo fi représenté aussi suñu xarit le maire de Wakhinane Nimzatt le maire Racine ma koy nuyu di nuyu mbooleem élu di nuyu aussi notre sœur Kadia di rafetlu bu baax a baax taxawaayam ak mbégte bi ñuy am saa su ne pour gis ko ci suñu wet mu nekk ci wetu jigéen ñi di def développement bu am solo may nuyu nag mbooleem délégué 14 yi nga xam ne ñoo nekk département de Guédiawaye sànq délégué aan wax na ci seen tur kon maa ngi yëkkati sant bi ak gërëm bi di ko teg ci loxoom di ko teg aussi ci loxo mboolem délégué yi fi wax sànq Adja Ami Seck wax na soxna Njole wax na mais surtout soxna Sali aussi wax na nga xam ne ku ko xam-xam ma mu nekk aussi kenn ci man ma koy sant di ko gërëm ci taxawaayam ak engagement wam bu ma ko nuyoo nuyu naa suñu mag suñu xarit suñu lépp ñu ñëpp muy le maire maa ngi nuyu aussi suñu sama collaborateur yi ma àndal sama directeur de cabinet mi ngi fi yeneen directeur de service yu bëri ñu ngi fi mais surtout directeur u fonds d'impulsion de la microfinance muy FIMF bi nga xam ne programme bi ñuy def tey ci moom la jaar muy monsieur Niambé Ndiaye may nuyu aussi euh, mbooleem ñi nga xam ne ñoo fi nekkal secteur microfinance bi yaakaar naa mutuelle ADEFAP mi ngi fi monsieur Guèye wax na ci seen tour mais mbooleem ku nekk ci secteur boobu rek nuyu naa la nuyu naa euh, vraiment assistance bi yëpp may rectifier nag xam naa ne dangeen xër ci man moo tax ngeen ne ñëw nañ ñëwati waaye ñëw ak ñëwati yi ñuy def yépp dafa am ku ñu mën loo loolu kooku ñu mën loo loolu moo ñu yebalaat fii tey tey bu ma solee samay dàll ba ñëw fii na xam ne président Macky moo ma fi yebal li tax président Macky Sall yebal ma fi aussi lenn rekk la ndax ba ñu koy fal di ko falaat dafa yëkkati loxoom waat ne li ko tax a jóg ak liy nekk yitteem ak liy nekk soxlaam mooy nekk ci soxla askan wi nekk ci yitte askan wi mu ne loolu ni ma koy defee mooy dinaa ko tënk ci juróomi ponk juróomi ponk yooyu ma ko tënk nag duma ci ñëw waaye dafa am benn boo xam ne moo tax ñu teew fii tey muy lépp lu jëm ci wàllu microfinance mais lu jëm également ci lu ñuy wax économie sociale et solidaire économie sociale et solidaire nag mooy gor yu baax yi toog moo xam jigéenu jàmbaar yi fi ne moo xam ndaw yi fi ne moo xam mag ñi fi ne képp koo xam ne daal yaa ngi ci réew mi di jóg pour daan sa doole xamal ne bokk nga ci ñi ñuy woowee économie sociale et solidaire ñu mën ci ràññee nag lu bari li ñuy wax secteur informel am na ay coopérative ñooñu ci économie sociale et solidaire lañ bokk d'ailleurs jigéen ñu bari fii loolu mooy particularité Guédiawaye madame la ministre géejawaay acteurs yi dañu organiser coopérative yaa ngi fi association yaa ngi fi calebasse yaa ngi fi lépp a ngi fi te da ngeen ko organiser teg ko ci temps d'ailleurs organisation boobu dafa law ba ci marché yi quatorze yi nekk géejawaay seen organisation dafa mucc ay kon muy coopérative yi muy mutuelle yi muy association yi moo xam ASC la wala leneen lu mu mënti doon ba ci entreprise yu mag yi entreprise privée yi sax mën nañ nekk ay entreprise sociale ñu dàkkantal leen acteur de l'économie sociale et solidaire rawatina secteur informel loolu président daf ko yëkkati ne dama koy def ministère maanaam dëgg la état bi mi ngi jël action yu bari di ko dugal ci ñooñu mais ñaare mën nga ko gis walla nga bañ koo gis bu lay dal doo ko yëg comme yëg boo xam ne dañuy yëkkati jox la mu jóge ci loxo dal ci loxo mais dama koy misaal ci benn exemple rek ndax léegi wax naa ko pikin ñoom waa marché pikin yi ñaar fukki marché yi ne Pikine dañu ne ci wàllu Covid bi bi muy ñëw ndimbal liñ doon gis ñu koy joxe yéguñu ci seen bopp ma ne leen dëgg la yoonu état ni muy dimbalee dafa bari waaye courant bi nga xam ne président yëkkati na ñaar fukki milliards ak juróom-ñaar fukki milliards ak ñaar ak genn wàll fay ko ci ñaari weeru Covid bi ne bu kenn du fay courant boobu dal nañu ñun ñëpp. ndox mi nga xam ne dafa yëkkati ay milliards def ci fay ndox mi ci ñaari weer dal nañu ñun ñëpp ba ci secteur de la microfinance bi nga xam ne dafa ne. nañu reporter échéance yi si juróom benn weer képp ku waroon fay doo fay daqal nañ la juróom benn weer dal nañu ñun ñëpp te ba mu ko dàqee nee na ku fay aussi doo si teg pénalité kon état dafa bëri action yu mel noonu yoo xam ne da koy def mais mën na bañ a jóge ci loxo tegu ci loxo président nag seetlu ne àdduna bi ba léegi dafa tërëti jafe-jafe yi day ñëw rek di dal ci kaw nit ñi bu yàggul lañu génn ci Covid bi mais ba nii ma taxawee di wax ak yéen problème mu guerre bi am Russie mu ngi suñu kanam fi mu nekk fii bëri na ñoo xam ne boo leen ne woon fi Russie nekk duñ ko xam te terewul ña foofu di xeex lañuy xeex mi ngi dal bu baax ndax bëri na lu ñuy jëfandikoo loo xam ne ci réew yooyu lay jóge boo xoolee pétrole bii dafay jóge lu bari foofu di ñëw ci ñun te njëg la cher na fa cher boo xam ne réew yi ci àdduna bi yu bari seeni njëg a ngi yokk boo gisee lu doon jar ñaar fukk boo demee états lu doon jaar ñaar fukk tey mi ngi jar juróom-ñett fukk moom ak France ak feneen mais ñun fii courant yokkul essence yokkul li tax lu mel noonu am mooy président Macky Sall dafa yëkkati ñetti téeméeri milliards dugal ko ci subvention ci énergie bi pour que prix yi mën a des fi mu des te bu fekkee ne situation bi ñu nekk soppeekuwul danañ yegg ci juróom téeméeri milliards yoo xam ne da koy jël dugal ko ci njaboot gi ngir jëkk yi mën a nekk fi ñu nekk te noonu mu ko defee ci essence bi la ko defee ci mburu mi yëkkati na lu tolloog ñaar fukki milliards ak juróom-ñaar ak genn wàll fukki milliards ak juróom-ñaar ak genn wàll dugal ko ci wàllu bëñ yi ak yeneen ak yeneen yoo xam ne état bi mu ngi koy def pour soulager population ndax loolu noonu ma wax bu amul woon dina gën a metti mais terewul mu ne donte loolu yëpp ñu ngi koy def te ma wékk sama gouvernance ci justice sociale maanaam nit ñi dëgg la sunu borom moo ñu bind te yemalewuñu waaye ci jëf kenn ku nekk nañu fexe jox ko cëram loolu benn la beneen bi egalement mu ne comme demee na noonu nañu fexe ba ndimbal bi di gëna a dal njaboot moo tax mu créé ministère bi mu créé dénkuñu ko sant ñu liggéey boo xam ne depuis daaw ñi ngi koy def ndax enquêteurs yi ñëwoon ci marché yi di enquête yéen ñëpp gis ngeen leen ñu dugg ci biir marché bi kenn ku nekk ca taabal ba nga toog ñu laaj la nga wax lan ngay liggéey ci lan nga ne lan nga soxla ñaata nga ciy def ñaata ngay soxla lu la mën a dimbali liggéey boobu yépp bi mu matee ba yemb ba ñu tënk ko moo indi tey mu yëkkati lu toll ni milliard ne nañu xool marché yi nekk biir région de dakaar yépp ñu fekk leen fa jàppale leen ci yëngu bi nga xam ne kon président Macky Sall nee na jox na leen téeméeri million yoo xam ne yéen waa marché Géejawaay ngeen dimbalee ko ci liggéey bi ngeen di liggéey kon cent cent millions kon moom mën nañ wax ne jaanam wàcc na léegi ñun ñoo ci des li tax ma ne ñun ñoo ci des mooy li ëpp ci liggéey bi ci ñun ñii la ndax xam nga li gën a neex ci jàppale mooy puus bëri na tey ñoo xam ne ay jàmbaar la ñi ngi liggéey li ñuy sàkku rek mooy ku leen puus ñu tàkk koo ci xasa puus ba mu tàkk day demal boppam kon nag puus nañ li tax ma ne puus nañ ñu mooy buñ la joxee ligne de crédit maanaam lebal loolu dafa am solo xaalis bi du lu ñu maye du xaalisu politique bu doon xaalisu politique liggéey bi du door at ci ginnaaw kon bu kenn dañ doon politique ndax ba ñuy tàmbali xamuñu woon ne tey lañuy ñuy dañu pare mu tombe ci waxtu boo xam ne études yi ñu def won nañu ne dafay baax ci période ñu wel nii ñu gën a taxawu acteur économiques yi ñu ñëw liggéey boobu ñu ne kon tàmbali la nañu fexe nu mu gën a oyofee garantie bi ñu gàddu ko euh, apport bi ñu gàddu ko frais de dossier yi ñu gàddu ko ba pare taux d'intérêt bi ñu ne 6 pour cent kon yaakaar naa loolu kuñ ko jox war ngaa liggéey remboursé ñu daal nag mën a constituer benn fonds boo xam ne tey téeméeri million lañu indi mais mën nañ fi ak déwén ñu indi juróomi juróomi téeméeri million te loolu ñun ñoo koy liggéey moo tax ma ne liggéey bi ñun ñoo ci des te liggéey bi biñ koy def ma taxaw nag sant délégué yi bu baax a baax a baax ndax kër boo ciy dugg dangay jaar ci bunt bi buntu marché mooy délégué yi ñoom ñëpp nag ñu def ci taxawaay bu mucc ayib ba ci délégué jàpp maa ngi koy nuyu moom ak soxna délégué yooyu ñu ñëw toog bokk waxtaan ak ñoom ñoo ñu wax li waa marché di xaar lii gën a yomb ci ñoom ak li ñu war a moytu wax ñu aussi nu ñu yaakaaree ne buñ ko defee financement bi dina gën a mën a am njëriñ moo tax fukki marché yeeg ñeent yi kenn ku ne am na montant financement bu ñu yëkkati jox la mais dañ koy teg ci loxo bureau délégué bureau délégué yooyu ñooy ëlbatikuwaat xool ci biir marché bi ñi nga xam ne soxla nañ ñi nga xam ne peut-être seeni loxo wékkuwul ci yeneen bor ak ñi nga xam ne xëy na soxla nañ ñu renforcer leen ñoom ñu redistribuer kon ñoom dañu am responsabilité bu mag ci lii nga xam ne ñu ngi koy def kon jàpp naa ne lii may wax fàttali la rek mais yéen yéen waa géejawaay marché yi fi ne muy xel xelkom muy yeneen marché yéen a ma gën a xam yëf yi nan la tëddee yéen a ma gën a xam aussi pas-pas biñ ci war a am ba liñ ciy wut ñu am ko kon nag na ngeen xam ne lii tàmbali la niñ ko defee géejawaay lañ ko fas yéenee def ci yeneen departement yi kon nag bu ñu ci kenn raw ndax man fii laa bokk xam nga te dama ragal defet man du ànd ak commerçant yu amul caaj kon nag na ñu jàpp ñu liggéey ndax nag réew mi ni mu yëngatoo moom ku tal leneen lu dul liggéey rek daa fekk daal kenn xamul la nga bëgg waaye ñun jàmm lañu bëgg salaam la ñu bëgg liggéey la bëgg ndax nag réew mi ñoo ko bokk te njaboot gi daf ñu yitteel lool kon nag maa ngi leen di gërëm di leen sant di sant ñi fi teew ñëpp di santaat bu baax madame le ministre de la jeunesse ak mboolem kilifa yi fi teew yëpp